kookan la ñu ne moo du gayndee borom kéemaan ak mën a faj ku fa ñëw rek sa aajo daal di faj mën ci hémorroïde ci ndoxum siti ci jabet ci góor gu tële wala góor goo xam ne da nga am jafe-jafe sëy ci tension ci asthme ci sinusite prostate ñoomi nerf sciatique ak yooyu nga xam ni moom moo jaaxal nit ñi muy dimbali jigéen ñi lool ci faru rab coro rab am na ay ñaan pour ku ba tukki ku bëgg place wala sax koo xam ne dañ laa liggéey am na tamit ay jaaro yoo xam ne jaaru kéemtaan la ko xale yi wax nga xam ne boo ko takkee cat du la topp bayre boo ko takkee da ngay bëri wërsëg waykat boobu ñuy wax sax moomu la takk am na jaaro boo xam ni wàllu kaaraange la am na jaaro boo xam ni cat du la topp am na sax jaaro boo xam ni dalay aar ci ay accident ak yeneen ak yeneen kookoy sëriñ bu mag bi mooy sëriñu ñëpp moom la ñëpp wóolu yéen annonceurs yi Kémane Vision moom leen di invité ngeen ñëw ci Kémane Vision bu def leen ay xiwal ngeen am ci moom ay prix yoo xam ne du ngeen ko gis fenn ci Kémane Vision rek yéen annonceurs yi yéen ñiy jaay wala bëgg ko fésal seen produit aca Vision pada na pour defar leen gumu ci njëg bu mu gën a mana a gën gumu gën a gumu maanaam ñu mu gumu a ciidee mu gën a wooyofee Bye. Dakarun ya kusa da duniya. Dakar, Dakar, Dakarun ya adiyo. Arin ya hen Dakarun. Aiwa. Masamba fatim kumba. Shamba man. Ribar ginga ce kijo suma jabar ginga yi. Na kici take. Mani ya kam tinga. Tenga ni tek teke luma. Jela. Alarba alkamis lasin gen te jaba. Angara. Boma ko wahu dumu. <laughs> Wai. Arona Arona yéen a nekk man dëgg de. Arona Arona gis ngeen. yow kër gi nii lay mel su ma reposé. mooy yow yow xamoo ne. yow kuréel man géej naa jëm. wuy si sama ndey sama ndey ngeen ma nax <laughs> ah. yow de li ngay jaay dañoo war a jënd lépp benn yow jar na ko. ndeysaan c'est que Baaba Maal day day day delloo ma cosaan. kaw Arona dama la nam. waaw waaw an Caroline an du ngoon laa an. liggéey bi. ah liggéey bi dañuy nuyoo. naka si affaire yi rek. nga ma. <laughs> noo kii daal la. Ah, waaye wuyu ma. waaw vax ba nga ma jaayan baaxul. ah. yow doo bàyyi li ngay def nag. boo ah. jënd ci itaaget yu baax. laa jël keroog ah, euh, ko jox. itaaget bu mooli lay jox. man de bi nga ma jaay damaa romb chaise. waaw jàpp bi moo la jàpp. mu ne taret. Hmm. am na fu teppeeku balaa may dem dama koo camoufler. mbaari yëgul ko si kaw si wottiwul si bu bi wottiwul si bu ba si kaw bu si baal fooy sama nekk noo seet xam nga boo solee waxse waaw ngay toog si biir yi xew si nit yi surtout yow ni nga rafetee yow di nga mel ni coupe d'Afrique <laughs> <laughs> am nii day lay xool boo toog da ngay def benn nag ngay def noo noo gaas noo gaas si doy noo gaas noo gaas mais boo defee farax farax rek mu xogee ko jar na ko. yow ma rek. yow kii fu mu fexe tey yënga ana ana Baye Ngor. kon Baye Ngor li mooy wax yëpp mu ngi nekk si. ah ñoo moom suñu bopp nag tey duñu kaf. waaw Baye Ngor mun naa xeex ak ñëpp kii lu jotee ak moom. naa Ngor. moo raw gaynde buy jaay ndawal. nekkul waxaale. da lay lekk de. waaye nag wax si yaay bi. wax si jay bi wax si yabooy bi mooy gën kaay leen wax si affaire bi eh, Caroline ba le passé am na loo waroon jox ah bon eh. yow sa sa vax bu kii bi. Eh, eh. non dinaa ko jox nag yow Kaaw du def Caroline bu njëkk dafa dafa dafa directé Kaaw ma mais léegi dafa nekk triat. Kaaw Arona man yow yaay sama Kaaw nag yooyu doo def. <laughs> moo tax waaye ñëwal rek. ñëwal wuyu ma rëdd bi soriwul wecc ta fi ne bàyyi ba ma fayee ko ma sol de jox ko rek bàyyi ma jox bàyyi ma teg damay teg fayal lépp rek xanaa nekkoo sama xarit nag li ci des bari oh. dafa bëgg xaalis. moo moo fi bàyyi nii ah Farimata mu ngi sotti ma damay solde nag. waaw ci li ngay bind kaaw génn nii gaaw ci li ngay bind. nguur kura. kura benn la rek. kura nguur yomb. balaa bàyyi góor kura gën a yomb nguur na. su su su ñaari doy na. waaw nga ah, mottali naa la jox la mottali waxal sa xarit foo leen nekk foo leen ñuy wax mareem euh, mareem. waaw tria bu mag ñëw daw di dugg si rotalam bi keroog doomam bi moo ma ko génneel. ay ko nokk. nii la ñuy yóbboo. mbaa góor ñu ñëw de. nga ne la. damaa fale bàyyi ñu. yor nga wax Arona. won <laughs> o wu ma ko sax neexoo ko. waa toogal rek. taw. maa ngi taw waaw. ah ki sama jëkkër sama séeri xaw sama xarit xaw sama complice xaw sama lan nga man ah danga di gor nag ma sëy gor dëgg du neex bu doon ñi ngay àndal ñëpp ne yow lañ mel Sénégal jëm kanam ñëpp ni man lañ mel xam nga ñi bokk eh. Eh, rek dañ wax naan ma di di mois kii kii ti fréquente je te dirai kii tu es alors jëlaloon say jikko say façon say demin non bàyyi yooyu ay wax yu jàll la bàyyi yooyu bàyyi tooñ da ngaa a tooñ nag mën a sànni say xeer ak ak a maslaha yow <laughs> àddina maslaha moo la ci gën a ndax dafa metti ñu rek waaw loolu lépp la fii dara jar fi dara <laughs> waaw wuy ma waaw ah. keroog ñëw naa waaw

def a gën lu mu deful ñi ko xam a gën ñi ko xamul dem fa gën ñàkk fay dem kooku kan la Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan borom càngat gi borom kannaar gi borom ndombaay kaaraange macha région bu kaw Kaolack kër Sambara Xinjoobeen Serigne Modou borom kannaar gi askan bi tuddee loo ca tëj loo ca tëj moo di kannaaru gàllaaj goo xam ne booleem soxla boo ca def ci wàllum ut ut am am wala sax pexe ba fegu ci sa bopp kaaraange gi looloo ko tax a jóg yéen ñi nga xam ne dañ leen a yoreel boor a dang di ci yéeg a ko wàcc seeti leen Modou mu jox leen ci kànnaar gi den wax ci seen soxla seen aajo faju biir a nii goo xam ne itam ku ne ci réew war na koy wut ñi ngeen gis ñu am ko ci réew mi ci moom la ñu ko jëlee moo di ñetti jaaro yi benn bi bàyyi la yaay ak doom ñetti jaaro la yoo xam ne mbooleem lu lay ubbi ci sa buntu àdduna mbooleem lu lay aar mu ngi ci ñetti jaaro yi Serigne Modou Gaynde Kéemaan moo ko fi am ci réew mi leneen loo dul jëlee feneen fu ci moom Serigne Modou Gaynde Kéemaan moo di ndombay wëllu mag ndombay wëllu mag ni turam ku ko takk dana la aar foo mën a toog koo mën di jëflante rek ba ci sax sa yi tukki ndomba gi da lay musal ci l'accident ñi ko yoree ak fu ñu mën a toog jëye ju fa man di wax wàcc feek ñu ngi ànd ak ndomba gi yàlla da leen di musal ci barkeeb ndombaak wëllu mag gi lu manul ñàkk ci dund moo di koom-koom bu nit ñi amee nga am soo wutee am boo toogee itam di gën di am mooy càngatu fataan fataan cangat gi sang bi moo ko fi def ñi ko xam duñu fa gëj ñi ko masalaal rëcc ko càngat gi fataan fataan la foor na fooraay goo xam ne ku repp koy laal ñaari yoon ci at mi ko mooy yow mi ko laal ñaari yoon ci at mi génn réew mi benn wala daañu la ñamal kaso ñaar loole nag mooy firndeel fooraayu càngat gi te la mu koy defee seeru lii yëpp ma wax nag ay mbir la yoo xam ne liggéey lay laaj balaa koy def ak yow li si xaar ko gis say mbir génne say sarax doog a sóob yow ci liggéey bi numéro téléphone 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde Kéemaan Mathia Kër Sambaraxi Njóobeen dégte la ñeel réew mi kon da ngeen kaa war a xeex mu jéem mhm. détail baaxul ci diggante diggante bu amee détail rek te yéen ñaar du lii kenn mënul dem sa baay sa morom kon na ngeen jàppante te yàlla rek tax na moo fi nekk du dëgg nay metti muy neex muy naqari dañoo war a toog kon nag du metti ñu toog mu neex ñu bëgg a daw ndax fii xam nañ ne jamono ji mu nekk dafaa neex ndax yaa ko yor du dëgg kii nag da ngeen a xamal loolu waxtaan naa moom gisante naa moom sama doomu ndey lu ma ko ñaan dama koy may may ma kaa tax nag mu ànd ak man ba fii kon nangul na ma loolu Euh, bijou mhm. yow wax nga lépp bu neexee dañoo war a ànd bu naqaree dañoo war a ànd kii lépp laa ko mënal amul lu ma ko defalul téye ko nag téye bu rafet rafet ñeewul benn moromam dara umpul si ñàkk liggéey rek soo ñaane fes ñàkk liggéey soo ñaane dootuma décrocher téléphone dem ba di ma couper loolu la def nak lu ñaaw loolu. bëgguma loolu ki ma yor a nagam ñëpp. tey dama say sotti ndox mu tok yaangi ni goré ba légui and ak mom moom. ay aduna dara ferñeente wu la. moy dëgg nak soña ton problème c'est quoi. yow ya am problème. ndax lan. mais man awma ben problème. ndax lan nga wax loolu. xaalis la wax. waaw. bàyyi mu sedd day bir comme mom mo wara jënd frigo jaay glace néna ndox mu tang lay baxal ku mu romb wis la ko. dina xam ne maa ko gën a métti man mii sàppoor di fay lakk. yow dama la koy tuur. fii la taxaw ne carrément xaalis laa tàmm mais moom xaalis boobu moo ma ko tàmmal moom laa njëkk dundal ci góor premier jour nga ñëw suñu kër 200000 nga ma fëggee jigéen boo ko fëggee mu ànd ak yow ànd boo xam ne yor nekk ñàkk yor baa. bëgg la bëgg waa léegi man tamit dama laa bëgg mais ku yorul neexu tëb bëgg ndax ñun guddi yi ku ne xam na ne greffage fu mu chéré dañ ko war a tàkk yére fu mu rafetee dañ ko war a sol dal fu mu baxé dañ ko wara sol léegi léegi dégg na la nga nan ko ni mu mel xol ko du mom dé travail de mama ah. la bul ñaan ah ah bul soxor nit déggo li ma bay leen bu leen góor euh, defaree ngeen jong mo ngeen xey or bul gis leneen xari xamanté nañ moo fa ko né li nga ma fi inde li du bu daawul yaa ngi sax bu ko xey mu jog mu dem ah, ñëw fa dëgg nga dem bu ma jóg dem yow xam nga ma bu baax yow yow yow soña fi mu dul téye léegi foofu laa dagg soña fi mu dul téye laa ko debi mu xoolal loolu nekkatul gis naa nag bu ne fu ne ba nga demee man foogoon naa ne ne ne ne ne waaw waaw. waaw waaw. yow tamit. Eh, yow xoolal gisal yow xaaral ma déglu ma xaaral xaaral xaaral bisu. Eh. yow gisal ku la neex. yow li ma la ñaanal yow xam nga ni sa seytaane man la. waay yow xam nga ni mën nga bëgg. waaw yow xam nga ni carrément boo amee jinne ak rab maay sa dëmm. wan nekk yow nga yow xam nga ko. loolu maag yow ay wax xool ma. déggoo li ma la wax yaa ngi gis jinne ci mbedd bi yaa ngi gis noo xóot ci mbedd bi mais may sa ma ne la léegi de gis naa ku may ruux te doona moom ruux wut ay mënoon mënate sama loxo yi wut karwaas sama yaram bépp gaan nga téye ko yow lan moo tax bëgg dund bu vulgaire ay ruux lan mooy ruux yow dama laa defal loo mën tax xoolal maak yow ñooy xool ma dama ne xooluma la mbedd bi boo fi amee jinne suñaa déggoo li ma la wax mbedd bi boo fi amee jinne suñaa am nooxóor maay sa dëmm yow xam nga la laa bëgg lii waxtaanu famille la toogal toogaay dëkkandoo dëkkandoo moom xaa toogee yaa ma fi di ne toogal toogaay xamante nañ on se connaît eh, eh, yow eh, xam nga na di ko dóor di ko def lu nekk di damaa xanaa yow yow yow amatoo cër si kenn amul kër yow lan la yow ngay oote virgule gën a virgule aller retour mais bu ñu leen ñaanee dañuy maye lan dara ah xoolal damaa bëgg yëpp mu jéem ñu teg ci suuf ñu wax li fi nekk da naa a bëggante yàlla def loolu nekk baal baax eh na nekk ndoxum glace waaye nekk baal ah. maa ko war anu, dama ko non ya, non ko man man man man maanaa laan ma ah. yaay jigéen ni. Sonia dama uyu damay génn si jiwoo bi de. dama si génn de. wan nga say dentiste mu dëgër. dama si génn de. Eh, eh sama loxo bi mi ngi metti de. waaw. yow hmm. yaa ya, maam. da ngeen mën a ko def waaw gis nga gis eh waxuma loolu de xaaral na gàmmi waaj soña bàyyi la ngeen eh, bëgg dana reetaan waaw xam nga mi ngi indiwaat ah non bu ma teg na na wax rek bu ma conférence sourire rek si daayira bi wax de di ma jege taay daal lu ma dégg dégg naan taay seetkat bi am nga fit nak taay dafa aay tët tët tët kii ba de benn nit buy robineew yaa ko raw ci am fit kilifa laa léegi respecté ma soo ko pati waaw kilifa mais lu du kilifa bu sama kanam kilifa am si biir fànn ah waa seetaan biisu bàyyi ba bàyyi ngay wax bébé seetaan bàyyi ngay dugal xam naa li ma la wax si biti moom waaw mi ngi yéex waaye si biir faa nga xam naa li ma la wax fépp waa baax na preuve tubaab preuve la bëgg loolu rek la bëgg te ndeysaan moom tubaab la de carte lay seetee lii lan la teel góor gi nga doon xeexal mu lay dóor dóor yu métti yi. kanam <laughs> preuve. toll nga si 3 jours 4 jours ba 5 jours sa àdduna bépp lëndëm dëgg la wala du dëgg. Hmm? ah dëgg ah? la foo jëm. <laughs> naa la sama yaay sama yaay waxoon naa. ku lay génn kër gi yàlla naa dee. ak ma ñàkk sama ndey billaahi doo génn kër gi. bisu demal bisu gënal dem. dem si tan ñibbil. ah ma dem waaw. kaay doo doo dëkkandoo. bisu demal yow. bi demal. waa bisu mën ngay